yow mi say mbir dëgër ba lépp loo yaakaar mu tas wala yow mi di wéyale xeetu jàngoro bu la sonal trop wala nga nekk sa biir néegu sëy te bëgg am doom sax nga bëgg ak sa borom kër wala sax da ngay jàng te bëgg am ngay tukki te bëgg am visa wala sax nga soxla ay cangat pour ubbeeku mbaa muslaay gaaw gaaw di daan ak sëriñ Maalik borom àll bi ci ni mu la di avisé ci kàttanu yàlla ak mbaaxam maa ngi leen dimbali ci bépp problème bu am borom bi askan wi yaa ngi nii. sa gëm baa ngi noonu. lii mooy sa càppaandaw ga. gis nga lii nii. waaw Tidiane Faye yàgg na koo sëkkee. lii mooy sa sa suufu suuf. mu nga noonu am na lu muy seet si suuf. waaye sa bërëx rëx ba. laa ilaaha illallah Tidiane Faye ak curux caraxam. Ah. loolu cu la. dugub ak génnam. laa ilaaha illallah. Ah. Ah, waaw loolu waaw non non combat bii nii ah. maa la ko wax fii dina mel ni su xoto nu saañ bëree nga dugg Gambia nga dugg Gambia dina la sukka noon kolle Abidjan dégg nga loolu alaaji xale ay la la waa Gambia am nañ problème ay bu leen Sénégal jàppee waaw noppi rek Sadio Mané jël bal ba ndeysaan dawal ko benn côté ba Ismaïla Sarr ay ah. Iliman Ndiaye oh Pathé Ciss moo koy paas waaye dugal mu jeex waaye moo tax ma ne la ku sa yaay di jàmbaar waaye doo daw xare de doo daw xare waaye moo tax arbitre ba sifflé na waaye jibi bamba borom Touba Taïf Karo ndeysaan maa ngi koy ziar sunu xarit ndeysaan alaaji jibi nee naa nag karo bu baax ah. boo ko bëggee dawal gaaw ci jibi bamba borom Touba Taïf Karo bu jëflante yow uh-huh. ci lu baax waaye combat baa ngi noonu ndeysaan ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar ñu ngay lewaatoo lewaatoo bu dik ñoom ñaar ku si nekk yaa ngi armé wu taxaw di lewaatoo ndeysaan mi ngi noonu ñaari xale yaa ngi diggante Tidiane Faye ak Ndandi Fall waaye Ndandi Fall moo leen féetee ginnaaw noonu waaye Tidiane Faye moo leen féetee kanam noonu mooy ndaamal màcc li Ari baa ngi leen wax bëri leen ñoom ñaar El Hadj Khalil. ma ma combat bi dina gaaw Babacar. combat bi du bi day bari. calcul day bari. ndeysaan. ndeysaan mooy noonu Ndandi Fall. li si kanam rawuli bët. Ndandi Fall Tidiane Faye ñoo ngay lay toog di ko benn bennal. dafa mel Ndandi Fall dafa jege si fas yéene bëre. ndeysaan moom daan di faal. waaw ñoom ñaar seen poids nan nga ko gisee. ak xarit yi ak xarit yi ak am di jàmm yi. laa ilaaha illallaah Babacar yaa dégg. ak soppe yi ndeysaan maa bëgg. Eh, waaye je t'aime énormément. waaye dégg loolu. lem tu es belle comme ah waaw tu waay ah tu es beau tu es beau. la yow maa vie yow. ndeysaan. ndeysaan. je t'aime énormément. ndeysaan jàppante la ñoom ñaar daw nañ daw nañ. naan di faal bëgg na jeexal nga moo ngay dajale. naan di faal sol na ko. ndeysaan waaye le professeur de l'Ansar. ndeysaan jàpp na sa njëmb la. ndeysaan. Nandi Fall am na lu bëgg a kéré mais Tidiane Faye mayu ko loolu. ndeysaan ñoom ñaar jàppante na ñoom ñaar waaye nee naa ko Nandi Fall la ko guus si baax na. ndeysaan fu baax na. mu jàpp baax na. Tidiane Faye tamit fu mu korose loxo ba ñu la si ah. foofu baax na. ndeysaan waaye Nandi bu defee action rek mën na am dara. ndeysaan. Nandi Fall Tidiane Faye. Nandi Fall ak Tidiane Faye ñoom ñaar. Nandi Fall Tidiane Faye. naan jàpp naa ca loxo góos ba. daan bi day métti si ñoom te ndimbal dafa métti Alaaji Xalil. waaye jël bu rëy nan lañ ko fay gis jël bu rëy. jël bu rëy jël ba spectacle. parce que ñoom ñaar ay naanaan lañ. ay champion ay naanaanu bërekat waaye Yaram Aar ndax am na lu bëgg a kéré mais Tidiane bañ na Yaram Aar moo woote le 13 janvier Yaram Aar suñu bokk suñu xarit ci diggante Ibou Afia ak ki nga xamante mooy Baba Jaxal mooy Baba Jaxal ndeysaan waaye waaye imposé imposé men bu waxaam bu waxaam mooy dajeg Diop 1 Diop 1 men génn wax na loxo jël na kàng boobu moo koy plaqué daw na plaqué ci ginnaaw saako yo laa ilaaha illallah. yóbbu na ko. ñamante nañ. ñamante nañ ñoom ñaar. laalante nañ. laalante nañ. Oh. wax léegi. parce que Tidiane instant yii da koy ah. day ñëw si moom. jël na tànk ba doon na ko jël. waaye ki nga xamante ne mooy Ndandi. Ndandi Fall. Rassouna jàpp sa ngemb la. Rassouna jàpp sa ngemb la fi war na fay a jeex maa di ko fiile. ndeysaan mais damay xalaat Tidiane Faye bëtti ko foofu de. wala bëttu. Tidiane Faye lu sëpp ma may bëtt. daa wër nomba. wala mu xaju fa. Ah. Nandy Fall jël na bopp ba dugal ko si suuf. te saa yi fii ñu jàppante nii technique bu ne war naa war a mën a génn fii Alaaji Xalil. waaw waaw ndeysaan dem na si Bébé Diène. ay bu làmb bu son toll fii. bu tolloo fii dund instant bii nii ak si si làmb instant bi daan la ilaha illallah yegg na lan moo dara xew Babacar ñoom ñaar bëri nañ lu rëy waaw wéyal nañ la ilaha illallah Tidiane Faye da ko wéyal jeexee am na si Modou Lo Balla Gaye ba Modou Lo Boy Niang ndeysaan Modou Lo Boy Niang tamit la ilaha illallah li amoon na si lu mel ko Nandi Fall ndeysaan Nandi Fall xam na ko mu rëpp Nandi Fall xam na ko léegi mu rëpp ba tey waaye Nandi mu ngi koy kaw da koo ñett si kaw ndeysaan mu ko ëpp kaw moo tax instant yii nii ko gën a diis moom Nandi Fall ndeysaan instant bu ko baaxatee mën na ko xëtt mu ñëw waaye penalty la ndand bi a ko xëcc mu tëdd ndand faal benn tànk benn tànk ba benn tànk ba benn tànk ba mu kàlla mais Tidiane mu ngi bañ ci suuf moo ngi a jiri waaye a waaye a Faye dafa jàpp sa sa suuf ba tey Tidiane Faye dafa jàpp sa suuf loolu moo tax asan bi naan amatul pexe ndeysaan baa ngi yëndu arbitre baa ngi yëndu suuf ndax kàddaa amul wala déet waaye Tidiane dafa taalal tànk ba ndeysaan ba boobu suuf di ci ko gën ndeysaan Tidiane Faye dafa jël dafa jël loxo bi teg ko sa bopp sa sa lii ba sa bopp bi gis nga ko mu ngi koy mboofaan moom daal di fan mu ngi koy mboofaan ba tey ndeysaan ba Tidiane Faye du toxi foofu Tidiane Faye naanaan la Tidiane Faye baa du toxi foofu ndeysaan nee naa ko Tidiane boo jigee fii waaye mbokk yi ma xam ne champion nga mbër nga Nandi Fall moo nekk ci kaw Tidiane Faye ndeysaan Nandi Fall lii de musuma koo gis lii garaaw na ma ne que lii attention jeex na non non daan na ko wala daana ko ko daan na ko wala daana ko ko arbitre bàyyil arbitre bàyyi nga xool mais fi mu teg loxo ba fi mu teg bopp bi sa loxo ba la ko teg sa loxo ba la ko teg sa omb loxo bi la fa la ko teg gis nga ko fa la ko teg noonu la ilaha illallah ndeysaan arbitre ba jëlama arbitre bi jëlama arbitre ndeysaan la ilaha illallah Tidiane fa rëcc na loolu bu jiiree Ndiaye. waaye nee naa la tey. fi. la ren la. léegi nag Ndiakhate ñu ne ma ko. ndeysaan gën a am confiance. naa ni Fall Tidiane Faye waaye bëri nañ lu rëy. ndeysaan naa ni Fall Nani Fall amoon na possibilité daal Tidiane Faye. waaw Tidiane Faye soqaas na. Tidiane dafa gaaw. li moo tax xale yi duñ ko jël. moo tax xale yi duñ ko nangoo jël. ndax daa mën a bëree. dafa mën a bëree. ndeysaan dafa gaaw. dafa bëree expérience ñaanaan la. ndeysaan. xale yi xale yi ñoo yooyu xam. pression bi la. pression bi la. ndeysaan door na door fayu la waaye naan naan daw na yoor naan yor na yor na naan yor na naan di naan yor na di fay naan di da ngaa matt da koo matt wala déet matt laa ilaaha illallaah da koo matt wala déet li nga xam ne da koo matt da ma gis programme bi. ah ki nga xam ne mooy Tidiane Faye. ah di signaler arbitre bi. non non non Nandy Fall du maté. ah. loolu loolu non parce que song bi song bi. du mbër yooyu du mbër yooyu. la ilaha illallah. ndeysaan. taama jeex na. taama jeex na lii xew. jeex na. jeex na lu xew. mooy la prolongation. Nandy Fall. Eh. jox nañ Nandy Fall victoire. nee nañu Nandy Fall جون نانيفال فيتو اربي ديجا اربيترال فيتو اربيترال